nga ma bëgg rek wala bañ fi rek la hey mbokk yi daw leen gaaw seeti ngéwél gi di sutérisee tubalaay moo ngi nekk marché Koungheul am face boutique Sidi Bara man ngeen a jokkoo moom ci numéro de téléphone yi wala ngeen jokkoo ak moom ci 70 92 lépp loo bëgg ci xeetu plaqué boo demee daal di ko fay fekk ma ne yéen ñi bëgg a jongama fii rekk la tus nag ngéwal gi tasar